dencal ko Amina bintu Wahab Amina bintu Wahab moom mu ko dencal mu ngi bokk ci ñi gën a tedd ci néegi Quraysh ni bi mu ko ko dencalee mu ëmb yonente bi sallallahu alayhi wa waaye nag ginnaaw bu mu ko ëmbee diir bu gàtt la am Abdullahi génnoon di defi am commerce ca Yasriba foofee fa faatoo ñu denc ko fa moom Abdullah foofa la ay nijaayam dëkk ci bani adi ibnu najjar jamono yooyu moom abdullahi mi bàyyi yonante bi mu ngi toll ci ñaar fukki at ak juróom kon yonante bi bi mu nekkee ci biirum ndeyam la baayam faatu baayam bi muy faatu mi ngi toll ci ñaar fukki at ak juróom ñu denc ko foofee ca Yasriba te Yasriba mooy fii ñuy tuddee madinatu rasul sallallahu alayhi wa bim demee ba amub nag mu jur jëmm ju tedd yi ñu ngi judd ci bisub altine tolloo ak fukki fan ak ñaar ci weeru rabiul awal ci at mu ngi wax atum ñeye xaamul fiil atum ñeye nag dafa doon xew-xew bu siiw bu amoon solo ci arab yi moo tax ñu di ci taarix ndax dañuy wax ni Euh, Abraha dafa doonoon liggéeykat boobu euh, buur bi dëkk Éthiopie moo ko tegoon Yaman di ko fa liggéeyloo mu doon fa jaraaf di ko fa nekkal moom dafa amoon xalaatu nii danaa tabax benn église boo xam ni boobu bala maa bàyyi aj gi arab yi aji ca Kaaba ga danaa ko wëlbati indi ko foofu ci église boobu ngir di sàkku ngërëmul kilifaam ko gi ca Éthiopie bi mu tabaxee église bi nag ba bàyyi fekk am na ci arab yi ku déggoon kàddu googu mu wax loola naqari ko ak donte sax boobu diini islam ji ak seegul waaye màkka ak kaaba gi eh, lu arab yi war maa loon la lu ñu fonk la naka jëkk bi mu déggee kàddu googu gi ko wax ne ko danaa la tabaxal église bopp bala maa bàyyi dama soppi ajug arab yi mu jëm si fi eh, bi ko arab boobu déggee loolu moo ko naqari bi église bi àggee bañ defar ko ba mu rafet mu dem taqal fa ay taq na ñu wax ne dafa dem Euh, dox fa aajo ci guddi ci heure guddi biñ xëyee Abraha laaj ni ku def lii ñu ne ko kenn ci waa diine Kaaba googu yi nga waxoon ni da nga soppi aju Kaaba gi andi eh, ko ci sa église bi kenn ci ñooñu moo dégg li nga waxoon mu naqari ko moo tax mu ñëw def fi lii. Abraha daal di ci gën a am lu ko naqari ni kon bala maa bàyyi sax dimme Kaaba gi laay màbb far toj ko mu jax ci loolu ci la jëlee ab arme bu mag arme boobu nag. Euh, dañoo wax ni ay ñay lañ daan fab muy jiitu ci kanamu arme bi xañ na sax euh, ngir tiitloo nit ñi ko xamul lañ ci daan jublu xañ ñoom tàggatoon nañ ñëw salam mu jóg ñëw gis ci Abraha ndax dafa mel ni ñëw gi mu ñëw ba jege Màkka jàpp jël ga du mu wëtt rek li ci jublu mooy tappaas leen ngir mën a déclarer guerre digganteem ak ñoom Abdul Muttalib tali bam ñëwee wax nañu ne bi ko Abraha gisee am na war ma jum ko jum ko jox lool buur la nguur gi nanguwul mu di ko teg ci kaw lal bi ñuy bokk lal waaye war moo jum am ci moom it mayu ko muy toog ci suuf ba tax na dafa wàcc toog ak moom ci suuf daal di koy laaj ni ko lu doonoon sa itte eh, Abdul ni ko dangaa jàpp ak jur te jàppaale ci sama jur moom laa ñëw ngir lii ci sàkku ndimbal ci nga delloo ma ko nee na Abraha wax entrepreneur bi doxoon seen diggante ni ko nee ko bi ma koy door a gis am na fu ma ko tegoon ci war ma waaye nee ko war ma jooju dañ ba mu ko waxee Abdul Mutalib Abdul Mutalib ni ko amee lu ko waral mu ne ko nee ko damaa jóg ngir si néeg boo xam ne ay baayam ak i moom la ñu gëm jàppoon ni bu ci loolu la may wax moo koy waaye ñëw gi mu ñëw wax ci mbirum ak jur gu ma jàpp ci la waaye fi na Abdul Mutalib ni leen nee leen ko jur gi sama jura man maa ko war a lijjanti bu dee néeg bii mu jóg ni daf koy màbbu si nag dafa am borom bu koy aar bu dul man bi mu waxee loolu Abraha ñaa ah, dafa am beneen borom bu koy aar man ko wax ko baax rek kooku maa koy xaar kon koy delloo ak juróom ni ko maa ko fi xaar ba xam dana ko mën a aar wala ci biir loolu bi ko delloo ak juróom ginnaaw bi la jóg jëm ca Kaaba ga yàlla yabal lu mel yoo xam ne dañoo bokk ay xeer yu ñëw tiim leen di leen ko sànni di doon loo xamante ni da leen a jaaxal lool ba arme ba dafa daal di tasaaroo ñu dëpp ñenn ñi dañu daanu dee ci diggante bi ñenn ñi am ay jafe-jafe yu bare bari léegi at moom mii nag la ñuy tuddee atum ñay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci at moom mi la gane àdduna moo tax alquran di wax ni alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil alam yajcal kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi xijaaratin min sijjiil fa jaalahum ka asfin maakul sarwo wi ci abrahama mi la ñuy tuddee atum ñay yi ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam judd mu mel ni xarbaax googu yàlla def ko def ngir la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak wane ni lu rëy ku rëy mi bëgg a feeñ ku ñuy wax Mahmoud ku amoon xam-xamu fëlëg nattale na xaamul fiil atum nay nattale na ko euh, ba gis ni mi ngi tolloog ñaar fukki fan ci weeru naysaan te muy avril ci 571 ci juddu juddu Isa wax na ne ñaar fukki fan ci weeru avril ci atum juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ci juddu Isa mooy tolloog juddu yonente kon fi jant bi fenk ci guddi fukki fan ak ñaar ci weeru rabiul awal ci penk teg fajar fi fajar di fenk foofu la yonente bi sallallahu wa sallam gënee àdduna mu gënee àdduna yaayam Amina daal di yónni ndaw ci maamam Abdul Muttalib yëgal ko ko Abdul Muttalib ñëw ànd ak mbégte tuddee ko Muhammad mu mel ni yàlla moo ko ilham yenkiwal ko tur muy Muhammad waaye tur woowu dunul wu siiwoon sax ci arab yi tur jëkk mu xam jëkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nag ñu ko tuddoon waaye ñu néew lañu yaakaar naa danañ ci wàññi ay ñetti nit ñoo xam ne Muhammad lañ tuddoon jëkk yonente bi ba laaj nañ sax mu eh, Abdul Muttalib moom ni ko waaw ana lu tax tur yi fi sa bàyyi ak sa maam yi bàyyi woon lu tax nga bàyyi ko fi di ko tuddee tur bii mu ni damaa bëgg mu doon ko ñuy sant ci ci suuf sëpp maa bëgg ak cantam daj suuf sëpp moo tax mu tuddee ko kon turu gaat nga la Muhammad mooy ku ñu sant sante mu ñu léegi gaat laa ci jublu ana num nàmpe moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa bokkoon ci aaday arab yi ñuy wuti ay nàmpalukaay ci dëkki àll yi dañ daan wax ni xale bi bu mu nàmpee ci dëkkub àll ci la aw yaramam di gën a dëgëre ci la am xelam di gën a ñawe daan wax ni dëkki taax yi dafay gàttal am xel loolu lu ñu gëmoon dana ko jekk moo tax gone gu masaan juddu dañ koy yóbbu ci àll yi ngir wuti ay nàmpukat yu ko nàmpal ñu daan nàmpal loolu moo doon seen aada yóbbu ci bàddeem ka ko jëkk nàmpal suway ba lañ ko daan wax suway ba moom nag nàmpal na ko diir bu gàtt ginnaaw bi eh, ku ñu wax xalima bintu abi zoaib as saadiya xalimatu saadiya door cee jot nàmpal ko bi mu ciy jot dafa fekkoon mu doon ak faqiir doon ku ñàkk man doon ku ñàkk alal moom Halimatu Saadiya moom waaye ci barke bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dir ba mu fa am jur gi mu amoon dafa dal di bari am soow lool sàmmkaay yañ daan sàmme it daal di dolliku naataange lool xéwal yu bare bare bari fekk ko ci biir nàmpal googu mu doon nàmpal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nu yor ko Euh, ba mu toll ci juróomi at ba ci juróomi at nag la ko delloo yaayam ba ko delloo yaayam fekk yaayam amoon na benn jëbër bu mu daan wax ummu ayman jëbër boobu mi ngi ko donne woon ci abdullahi bàyyi yonente bi sallallahu alayhi wa ayman moomu la la ko dénk mu di ko yar mu daan ko ko yaral moom xam-xam ci tasawuf dañuy wax ni dañuy wax ni li ci bokk na ci isaaraat yi ci ci ci mbiri yonente bi sallallahu alayhi wa doon ay tegtal yu yéene muy Abdullahi mi doon bàyyam rek dafa tegtale tawxiid dalilu tawxiid la yaayam Aminatu la tudd mel na ni tegtalu amaan la li ummati yi maanaam e, kóolute gu xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di am kóolute ci àdduna ak alaxira léegi tudd Aminatu boobu tegtale na ko Suwayba mi ko jëkk nàmpalit junjub ak sawaab te mooy ab yoon feeñ na ci xalimatu saadi ya mi ko nàmpalaat ginnaaw bi alxilmu wa saadi feeñ na ci te mooy ak lewet akuk taxe ki ko daan yar ñu di ko wax ummu ayman baraka alxabashi baraka la tuddoon ummu ayman aw daakental la mi ngi dëkkoon